salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice Rewmi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre jotaayu ndaw ñi la fii ci Rewmi FM mercredi bu jot 15h jàpp 16h comme ni ñu koy defee saa su nekk tey Aminata Thiam moom lañ fi dalal moo di présidente de l'Union des entrepreneurs sénégalais pour le développement et la promotion du consommé local ñu nar a waxtaanee lépp luy sa consommé local euh, fii ci euh, Sénégal Aminata Thiam ñu am mbégte kontaan dalal la tey suñu plateau ñu bàyyi la mbokk auditeurs yi lay déglu. merci Sylvie et voilà jërëjëf si invitation bi. Euh, mu nekk euh, mbégte si man mm-hmm. ma dellu si fii sama kër mm-hmm. <laughs> comme euh, ni ma ko doon waxee sànq sama collègue yi ma fi jot a tase mm-hmm. kër gi laa mooy profité si occasion bi di remercier président groupe bi Mbagnick Diop bokk na si ñi ma njëkk gëm en tant que ndaw euh, njëkk ma embauché njëkk ma proposé euh, contrat euh, boobu maa ngi doon soog a commencé xamuma woon dara mais mu wóolu ma. Mhm. amoon yenn responsabilité yu ma confié mën naa wax ne bokk na ci ñi ma formé ba ma yegg si tey fi ma nekk. ndeysaan am na solo yow yaa jiite l'union des entrepreneurs sénégalais pour le développement et la promotion du consommé local seen kuréel boobu lan moo ko tënk. Euh, merci euh, mën naa wax ne idée boobu mi ngi jugee ci troisième édition salon Made in Sénégal bi ma am bi may organiser chaque année. Mhm. muy benn salon bu may def chaque année pour euh, promouvoir. lépp lu defaree fii sunu réew parce que dama seetlu woon ne chaque année Sénégal dafay am ay foire yuy yu ñuy yu ñuy taxawal euh, ay FIDAK entre autres te en général foire yooyu lu ci ëpp ci ñi ciy ñëw bitim réew la ñuy jógee. Mhm. seen i étranger yi maanaam yi seen expertise yi faral di gën a wane. Mhm. ma gis ne doomi réew mi dañuy faral di néew si genre daje yooyu. Mhm. et aussi fekk ma doon animer ay émission ci bërëb yi ma nekk. journaliste la de formation ma seet seetlu ne ñu ci bëri ñu daan jaar sama plateau. dañuy soxla plateforme bu ñuy exprimer wu soxla fu ñuy wanee seeni activité soxla fu ñuy wanee seeni i produit mais daanu ko woon am mm. ma ne pourquoi pas ma créer loolu taxawal benn euh, événement boo xamante ne chaque année dafay fédérer mm-hmm. ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum consommer local mm-hmm. et pas seulement ci yenn domaines yi parce que secteur d'activité yëpp lañ boole. Mhm. mu jëm ci agroalimentaire euh, lépp pour bañ lim. Mhm. lépp luy composé économie sénégalaise. Mhm. ma ne pourquoi pas nu wane ñun li nu mën. Euh, jaay sunu expertise. parce que ñëpp xam nañ ne sénégalais. intellectuellement du foofu rek lañ yem. sénégalais xarañ na mën na créer euh, am na possibilité def lu bëri. dañuy gis doomi réew mi ñu bëri dañ leen di magnifier à l'extérieur ma ne pourquoi pas. ñun fi nu nekk fii ci réew mi nu promouvoir luñ fi am. Hmm. bon par la suite euh, bi nu paree sunu troisième édition salon dama am habitude au lieu que may def ay festivités di def lu rëy ma ne man je préfère à chaque fois bu salon bi jeexee damay def benn euh, benn réunion def table ronde. ak participants yi yàlla def année dernière mu am euh, neuf régions ci quatorze régions au Sénégal bi participer ci salon Made Sénégal léegi ñoom ñëpp ma dajale leen ma ne leen nañ def benn réunion ku ci nekk wax ma impression yi nga am euh, ces remarques et surtout ces critiques yu positives bu ko defee ñu mën a jëm ci kanam et par la suite bi ma gisee ne échange bi am na euh, presque secteur yëpp représenté woon ci mm. réunion bi et tout ma ne leen au lieu que ñuy def chaque année su suñu ñëwee def suñu foire après nu séparer ku nekk dem sa yoon mm-hmm. pourquoi pas nu réunir wu mm-hmm. autour d'une organisation boo xamante ne dañuy boole ñu ñëpp suñu doole voilà mm-hmm. beaucoup plus formel nu boole suñu doole ñun ñëpp bu ko defee nu mën a taxawal loo xamante ne dañuy xeex pour nit ñi gën a gëm consommer local parce que ñu ngi fii di liggéey lu rafet sénégalais bi ngi créer lu ne am na xarañte bi am na lépp euh, lu tax ñuy dem di jéegaan yi dem bi cim réew di importé yenn yi te fekk ñun am nañ ko mm-hmm. te loolu gëm nañ ni du yomb may yëpp lim boo gis ci benn lay commencer si à nous de porter lu combat mm-hmm. pour que nit ñi mën ñoo gëm parce que ñun bu ñu gëmulee suñu bopp kenn du ñu gëm mm-hmm. man conviction boobu laa am et de yàlla def nag ma taseek ay nit ñu baax ay nit ñoo xamante ne am nañ volonté réussir am nañ volonté dem ci kanam vraiment ay personnes de valeur yoo xamante ne ku ci nekk yaa ngi xarañ fi nga nekk mais teewul suufeel nga sa bopp parce que bëgg nga jàng parce que nit ki ak loo am am am xam-xam mm-hmm. am na loo mënul am na loo xamul mm. loolu moo créer sunu union bi nu nekk mm-hmm. di union des entrepreneurs non non mm-hmm. janvier lañ ko taxawal on peut dire ci lañ njëkk a def suñu première assemblée générale euh, yàlla def ñu ne ma comme yow yaa proposé idée bi du ñu bàyyi kenn mhm. mu nekk suñu présidente. Mhm. yow rek lañ ci yaakaar. e ma leen di remercier si loolu parce que nekk na lu rëy lu ma sas. et incha allah fas yéene naa def li ma mën. pour consommer local bi nekk une réalité au Sénégal. ñaata entrepreneur ñoo euh, composé union bi. ba heure bi may wax ak yow nii am na ñu nekk di adhérer. pour l'instant mënuma ko xayma mais xam naa ne bu nu jegewul une cinquantaine passé nañ ko. parce que ñun sax daf ñoo surprendre parce que euh, man yaakaaroon naa ne ñu bëri dinañ ne ah ñii day dëgëruñu parce que xam nañ ne secteur privé Sénégal dafa dafa xaw a diis. dafa diis euh, pour nga joñanteeg ñi fi nekk. Mhm. yombul man je me disais ñu bëri duñu wóolu. Mhm. mais damay seetlu à chaque bu ñu xëyee nit ñuy ñëw di adhérer. Mhm. te ñun nu kenn. ñun ñëpp la ñuy accepté comme ni ma koy waxee benn kuréel la bu ñu def. pour sénégalais yi ay sénégalais ñoo ko def. Mm-hmm. et différents âges. mën mën naa ne sax man organisation maa ci gën a féetee ndaw. Mhm. parce que samay yaay. ak samay voilà ak samay mag yu baax ñoo ci nekk. képp ku nekk entrepreneur képp ku nekk entrepreneur du moment wu. yëngu ci yow ci consommer local nga mhm. nekk. et même am na ñoo xamante ne sax ils ne sont pas dans la création ah. ñoom amuñu boutique amuñu produit amuñu dara. mais idée bi lañ am mais idée bi lañ am te même bu dul idée bi sax am na ñoo xamante ne ñoom seen expertise lañ am. parce que bul fàtte ne Sénégal nit ñi dañuy jàng. am na ñoo xam ne jàng nañ am nañ seen i publique sénégalaise moo leen formé fii lañ defee seen cursus et tout mhm. dem ba nekk fi nu toll mhm. mais xëy na amuñu boutique amuñu produit mais ñoom dañoo adhéré groupe bi des personnes individuelles il y en a énormément mhm. dañoo adhéré juste parce que ñoom idée bi moo leen moo moo leen ñor ñu ci bëri dañuy naan ñun consommer local ñu dañoo bëgg valoriser suñu expertise parce que ñaan nañ yàlla tey jii ku toog ne soxla naa ba ci menuisier ah. soxla naa ku ma defaral lal wala quoi que ce soit war naa war a mën a ñëw ci organisation bi. commandé mu fourniral ma ko parce que am nañ ay ingénieur démb rek maa ngi soog a gis ne on a même des spécialistes en intelligence artificielle am na ñoo xamante ne ay informaticiens lañ dañoo mm-hmm. jàng mm-hmm. informatique et tout mais dañoo adhéré groupe bi pourquoi parce que ñoom le simple fait de savoir que dañuy valoriser suñu compétence locale mm-hmm. ñoom idée boobu moo leen euh, moo leen ñor moo tax mu dugg si euh, tey euh, Aminata gis nañ de plus en plus on parle de consommer local sénégalais yi bëgg nañ mais euh, mu mel ni dafa metti pour ñu egg si pour ñu euh, ñëpp mën a euh, épouser cette idée de consommer local lan moo bloqué lan nga jàpp ni moo tax moo bloqué. man je dirais que consommer local déjà état d'esprit la. Mm-hmm. état d'esprit la. Mm-hmm. tàmm la ba pare volonté la. Mm-hmm. parce que même man mi avant ma ciy dugg. amoon naa samay habitude mhm. amoon na nu may solo mhm. amoon na xëy na marque yu ma bëgg mhm. amoon na style bu ma bëgg boo xamante ne daf may leer na fii du Sénégal lañ koy defaree mais dama am volonté wu jiital li sama réew moom su may joxee benn exemple rek bi may génn sama assistante Dior mi ngi may naan bu fi sol t-shirt de man ko pourtant t-shirt Africa lay sol yàlla carte de l'Afrique mu ne ma non waaye t-shirt. baaxul solal benn wax. au moins nga génn et pourtant wax defarewuñ ko mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. mais couture bi fii lañ ko defaree modèle bi fii la jóge mm-hmm. expertise sénégalaise moo tax. tey nu mën a wax ne lii manteau la mën nga ko sol nga dem. c'est vrai que nit ñi am nañ seeni habitude néewuñu dañuy ñëw rek changer habitude bi. non parce que loolu c'est impossible nit ku nekk yaay xool yow li la arranger ak li nga bëgg nga jënd ko mais. aussi ñun li ñuy gën a def mooy sensibilisation parce que dëgg la nag consommer local on le dit mais yombul. yombul déjà ñiy liggéey rek. waaw ak seen moyen ak seeni matière rek. déjà matière yi pour nga am ko rek ça coûte excessivement cher. ñu bëri dañ ñuy interpeller dañ ñuy naan yéen da ngeen di wax consommer local yi tout mais seen i article dafa cher. Mm-hmm. waaw dàll yi saak yi pourquoi le coût est aussi exorbitant et pourtant ça se comprend. parce que yow déjà matériel bi ngay liggéeyee rek c'est pas accessible environnement bi favorable mhm. te ku ci nekk bëgg nga di jariñu li nga xamante ne moom ngay liggéey parce que doo dépenser yenn somme yi pour mën a am benn article ba pare nga koy jaay au-dessous mhm. côté boobu nag lañ soxla appui wu suñuy autorité suñuy ñoom foofu la ñuy duggee enjeu mhm. parce on aura boo avoir de la volonté dinañ bëgg a def yenn yi. Mhm. mais suñu environnement bu bu bu yombul bu ko mayul rek duñu ko mën. Mhm. actuellement ñun rôle bi ni gën a jouer mooy un rôle de sensibilisation. rôle de sensibilisation mooy lan mooy sénégalais yi gën a patriote gën a patriote mooy tey jii nga def benn euh, forcing. forcing laa ko mën a waxee parce que il faut que nga bàyyi yenn habitudes yi. parce que li ma mënul comprendre mooy ñi nekk bitim réew ñoom dañoo gën a am tendance di jël lépp lu jóge Afrique. di ko di ko approprier wu. Mm-hmm. te ñun dañuy bàyyi ñun li nu moom li nga xamante ne moom la ñëpp soxla. Mm-hmm. ñuy dem di jëli ji leneen. tey jii man bëgg naa sax bu nu toogee ñu ne ah. lii de fii la jóge tey jii préférence locale su ma demee bay jëndalee naa xool ba pare li ñu defaree ci réew mi bu dee accessible na su ma ko mënee jël ma jël ko su ma amulee choix peut-être mën naa jël leneen mais ñun suñuy compatriotes bu ñu dimbaliwul ñëpp ñi ñi nekk ci consommer local rek mm-hmm. duñ ci mën a génn c'est vrai que na article na cher na trop loolu faudra qu'on en parle parce que tamit mënoo ñëw consommer local consommer local mm-hmm. alors que les articles ne sont pas donnés à le monde mm-hmm. loolu aussi c'est des choses à revoir mais dafa am lu ko waral te li ko waral noonu foofu la ñu suñu njiit yi mën a jàppale. d'accord pour ñun ñu mën a. servir dinañ ñëw ci cher boobu mais côté habillement euh, ndax gisoo ni sénégalais yi ñu ngi euh, épouser esprit consommer local parce que je m'explique parce que de plus en plus gis nañ suñuy tissu la ñuy gën di valoriser dangay gis ay étranger dañuy ñëw fii. di xool ci ñun di yóbbu de plus en plus gis naa aussi sénégalais surtout xale yi jigéeni bàyyi nañ def frisage ñu ngi bàyyi seen karaw naturel di ko traité cheveux naturel sax boo gisee njaay mi léegi doxatul noonu ndax léegi euh, xam nañ ni suñu karaw noonu naturel dara dàq ko. waaw moom laa la doon wax léegi état d'esprit la. Mm. état d'esprit parce que yow li nga yor boo ko boo ko valoriser wu. Mm-hmm. kenn du la ko valoriser. Mm-hmm. mi ngi mel ni nga ñuul rek nga ne damaa bëgg a xees. am na ay conséquences. Mm-hmm. et pourtant peau noire dara dàqu ko mm-hmm. état d'esprit la rek mm-hmm. état d'esprit la et ñun comme ni nga ko waxee suñu habillement dafa rafet mm-hmm. on a de très belles tenues te am nañ ay couturiers yu xarañ yoo xamante ne tey jii da ngay sol yére romb sax des fois da ngay tu mal même di ne lii Sénégal lañ ko defaree ay costume tout parce que lépp lu tubaab di defar nit yi ñun ñu ngi koy defar. Mm-hmm. peut-être des fois nag qualité bi mooy des. Mm-hmm. parce que ñun mën nañ créer gaa. Mm-hmm. mooy finition mooy suñu problème. je ne dénigre pas. mais aussi quand boo bëggee boo bëggee sa dara réussir il faut que nga pointer fii metti parce que tamit yow mënoo bëgg nit ñi bàyyi seen yenn habitudes yi. ñëw di jëfandikoo li nga xamante ne ci réew mi lañ koy defaree te doo defar loo xamante ne qualité la. Mm-hmm. loolu mënul nekk da ngay defar da nga leen di proposer service yoo xamante ne ñoom bu nu toogee dinañ ne ah mboote maa ngi ko doon uti ji bi cim réew waaye fii li ma fi am moo gën. Mm-hmm. te boobu ci bépp fànn nag. Mm-hmm. d'accord euh, c'est vrai janvier léegi sa fait huit mois. Euh, yan activité ngeen jot a taxawal. seen euh, organisation bi. bon pour l' instant taxawalaguñu benn activité. Mhm. pour l' instant. Mhm. parce que bi nu njëkkee def suñu assemblée générale en janvier. Mhm. comme organisation bi soog a jóg rek boo dëgërul doo taxaw. xaw nañ traîner parce que dem nañ ba ci biir comme tout le monde commencé am heurté wu yenn réalité. mais du réalité yu metti parce que ànd moo demee noonu. ku ci nekk da ngay indi sa expertise te ku ci nekk danga am sa vision ku si nekk dafa am nooy gisee il nous a fallu du temps il fallait que ñu xaar tuuti gën a xamante mm-hmm. ku nekk gën a wóolu moroomam mm-hmm. pour nu gën a mën a dëgëral suñu taxawaay et comme ni nga ko gisee depuis janvier la ah mm-hmm. te bi nu siiwalee sunu tur yàggul matul sax weer dëgg la euh, Aminata tey gis nañ dund bi cher na torop ñëpp a ngi koy jiiñ guerre bi euh, Russie ak Ukraine te pourtant euh, ay prix fii Sénégal yàgg na di prix yi day yéeg day wàcc yu ci mel ni ay soble ay pomme de terre ak ceeb ak yeneen ak yeneen tey consommer local euh, weddi wuñ ni solution la euh, pour tey coût de la vie bi mën a wàññeeku mais aussi guerre bi Ukraine gis nañ aussi lu mu ci def lan nga jàpp ni tey buñ ko taxawalee par exemple tey mën nañu atteindre suñu autosuffisance alimentaire côté lekk bi parce que consommer local yaatu na autosuffisance alimentaire yàgg nañ ko wax. suñu agriculture yi. Ah, agriculteurs yi ak cordonnier yi ñeneen ak yeneen. Ah, yàgg mm-hmm. nañ ko wax. Mm-hmm. Euh, dans tous les domaines. Euh, man je me que lépp volonté la. Mm-hmm. loo gis volonté la. fii bëri na réew yoo xamante ne ñoo ñu wër nu ëpp leen moyen fuuf te teewul ñoom ils arrivent à s'en sortir dëgg la nag du réew yëpp. mais pour man. question de leadership la. Mhm. tey Sénégal dem toll nañ foo xamante ne dund bi dafa chair et soxlawul nga nekk expert pour xam ko. Mhm. parce que boo duggee tey ci boutique allumette biy jar juróom ñu ne la fukki dërëm. léegi mhm. lay jar yow doo sax comprendre même tàngal mante. ñett lañ daan jaayee juróom léegi ñetti xaw ma ñaata lañ koy jaayee Sénégal léegi lépp a cher. man benn leçon rek laa ciy ciire nguur gi dafa war a gën a gëstu askanam parce que gëstu sa askan mooy développer yenn mécanisme yoo xamante ne yow tey jii di nga ko mettre en place moo sama yow di nga ci gis sa bopp. Hmm. mais sa askan dina ci gis boppam. parce que on dit pas que saa yu nguur bi xëyee tey maa ngi lire benn article ñu ne famille yu bëri nañ kontaan parce que njiitu réew mi activé na procédure bi pour famille yu bari nu defal leen ay transfert hmm. yooyu yëpp c'est bien beau mais hmm. benn famille bu ko defalee benn transfert wu vingt cinq mille. trente mille sur le long terme. Mm-hmm. instant bi mu koy jotee instant boobu lay jeexee doyu ko benn vingt cinq mille par exemple. Mm-hmm. au Sénégal defu la sax benn fan. Mm-hmm. je n'exagère pas. mais pour une famille ñun xam nañ suñuy réalité. tey da ngay dugg ci benn kër benn nit mooy liggéey. du ñëpp a am moyen. te dund bi dafa cher. déjà nit ñi pour mu am fu nu dëkk rek c'est tout un problème. léegi avec ça ñun suñu njiit yi ñoo war a yërëm askan bi. Mhm. ci lan déjà commencé di ñu déglu. Mhm. parce que di déglu sa sa askan dafa am solo man des fois dama ciy waxtaan ak samay proches demee naan man xaw ma politiciens ñu di xalaatee mais pour man dañoo desee muus gis nga sa askan boo koy déglu. soxla woo def politique pour ñu mhm. falaat la moom moo lay falaat pourquoi parce que da ko amal njariñ parce que da koy amal njariñ jarul sax nga fi nekk di politique wala quoi que ce soit mais boo faloo dégluwoo sa askan demee sa xel mais ki la jox mooy jëlaat yëfam après mm-hmm. moo tax dañ dañu war a gën a déglu du ma mm-hmm. dugg nag dans le fond du sujet parce mm-hmm. que réalité yaa ngi fi parce que li tax dund bi cher xëy na aussi d'une part aussi sa s'explique parce que yu ci bëri defarewuñ ko sunu réew dañ koy importé dañ koy jënd te situation bi elle est difficile un peu partout ak mm Covid bi gis nañ ko dëkk yu bëri dañoo am problème man je dirais que y a de rares pays africains yoo xamante ne ñoom génn nañ ci bon Maroc laa ci mën a citer parce que c'est un pays boo xamante ne côtoyé naa ko mm-hmm. damay liggéey benn damay liggéeyal benn groupe marocain mm-hmm. Maroc laa gisoon benn dëkk boo xamante ne envoyé nañ ay aide alimentaire et tout dans les autres pays africains lu tax parce que roi bi jiite réew mi moom dafa jiital askanam ñoo envoyé de l'aide waaw ñoo envoyé de l'aide vers les pays africains presque pays africains yëpp lañ ko def mais ñun tey jii Sénégal euh, suñuy njiit yàgg nañu wax autosuffisance alimentaire mais lan lañ def pour autosuffisance alimentaire boobu mën a nekk dëgg ça aussi c'est c'est des choses à revoir mm-hmm. agriculture bi sooxee na mm-hmm. ceeb bi surtout ñu ngi wax consommer local consommer local et toujours ñu ngi continuer di importer voilà te bu ñu waxee aussi yenn yenn projet yi wala yenn yenn liggéey yu ñuy mettre en place suivi bi mooy poser problème mm-hmm. parfois dafay échouer on se demande ah pourtant investir nañ tant milliards man am na benn pas hier il me disait man de milliards yi may dégg chaque jour ci télé yeeg rajo yi te déjà hôpital bi ma nekk nii rek pour nu faj ma problème la man de man man xaw ma xaalis boobu fu nu ko duggal nit ñi dañuy poser wu question mm-hmm. mais man je a dis communication bi moo sooxee parce que sa askan boo ko jiitee joxewuma leçon de morale dama koy mhm. xool ci sama bopp parce bu dul dara sax sénégalaise laa comme mhm. ñëpp mhm. mais sa askan da nga koy wax dëgg sa askan da nga koy expliquer bu problème amee nga ne ko lii moo ko waral bu ko defee moom mu mën a comprendre parce que incompréhension après leneen lay jur te actuellement sénégalais yi toll nañ foo xamante ne nu wax ko bañ ko wax dee nañ sonn nañ sonn nañ ku ci nekk nag ci lépp loo mënti liggéey dund baa ngi yokk yëf yaa waaw d'accord tey fu ñu toll nii lu gën a cher fii ci Sénégal soble bokk na ci yàpp euh, bokk na ci ak yeneen a yeneen mais soble bi moom lañ gis ni moom lañ moo gën a cher te soble nekk na denrée boo xam ne kër goo dugg chaque jour dañ koy utiliser. chaque jour que Dieu soble bi dañ koy utiliser euh, ci yaasa yeeg ceebu jën yeeg lépp amul dara loo xam ne tey ñun ñu ngi koy togg te utiliser soble même bu dee ceebu jën sax yow di nga soxla li nga xam ne moo di soble bi euh, pour nokkos bi est-ce que jotul tamit ñu xool yeneen alternative parce que fii jël benn produit rek fii wu ci bu amul rek yow euh, sa togg day foire xool ci yeneen alternative yi bokk na ci changer suñuy habitude alimentaire ça ba mm-hmm. pas dire que soble bu ñàkkee rek nit ñi mm-hmm. duñu lekk Euh, ñu bëri ñu ngi togg togg yoo xamante ne sax du am soble. Mhm. et pourtant noonu lay neexee. day neex noonu lay neexee. Mhm. Euh, soble dañ koy importer mais man je me dis que Sénégal am na nun doon doxalee sunu soble dina nu doy. Mhm. ñëpp gis nañ ko. ay ay ay vidéo yu ñu doon mm-hmm. véhiculer ci réseaux sociaux yi. am na ñoo xamante ne dañoo bay lu bëri. soble bi di soble bi amuñu fu nu ko fu nu écouler seen marchandise. Mm-hmm. dañoo mujj gas. Mm-hmm. di suul soble si. mais loolu tey état bu développé woon ay mécanismes yoo xamante ne soble boobu dañuy am fu nu ko stocké. fu ñu ko mën a denc. Mhm. conserver ko mhm. def yëpp lépp question de volonté la. Mhm. Euh, dégg naa benn du ma ne dégg naa parce que de source sûre y a une entreprise boo xamante ne moom moo fi conserver euh, soble bi te duñu sax ay sénégalais. ñoo xam ne te dañoo nekk bi bitim réew ñoom dañ koy denc. ba keroog nu gis ne yëf yi kii na rek ñu génnee ko à leur guise mais ñooñu lépp lu nu war a mën a ñëw defar ci suñu réew ñun mën nañ ko defaral suñu bopp. mën nañ ko defaral suñu bopp mais lépp question de volonté la. volonté la rek ak yërëm sa askan. Mhm. man je jii dis que état dafa faillir si euh, si si si si si devoir am wala quoi que ce soit. Mhm. mais juste di leen interpeller. Mhm. parce que tamit mënuñoo dëkk ci dépendance mënuñoo dëkk ci importer di indi Covid bu dee am na lu mu jàngal mooy dëkk bu nekk war nga résilient. di dundee yow li nga am tey jii bu nu xëyee le blé am nañ problème ak blé. mais am nañ dugub. Mhm. pourquoi pas nu jëfandikoo dugub bi. mais est-ce que c'est forcé sax mais est-ce que c'est forcé sax ñun ñuy lekk. pain chaque chaque jour si ndekki. ah man de personnellement man damay ndekkee ceeb. Mhm. man damay ndekkee ceeb. cere sax dama koy ndekkee. Mhm. lu ma am jël. mais c'est pas forcé ñuy lekk mburu bu nu amulee mburu nu développer yeneen solution. mais loolu yëpp ci base bi la. parce que tey jii bu ñu amoon ay dirigeants yoo xamante ni ñoom seen bopp ñooy njëkk wane lu bon exemple tey jii bu ñu xëyee mës nañ wane benn jour suñu président ñu ne président Fondé lay ndékkee mais président bu defoon benn communication ci loolu. Mhm. mais tey mburu bi dañ koy bàyyi. day jàll. bien sûr te fonde moo dàq fuuf. fuuf au moins dinañ ne ah président de fu mu demee bay. ndekkee Fondé ñun ñi nga xamante yoru yoruñu dara war a mën a ndekkee Fondé. bien sûr question de leadership mhm. lépp loo gis leadership la ak communication surtout. jeex na. Mhm. kon daal des na ci président Macky Sall loolu idée bu am solo la. muy moom nag ak mhm. képp ku fi mënti ñëw man mhm. man je me dis que la bataille aujourd'hui mhm. elle est psychologique muy président Macky ak kenn man déjà ki ko ki ko nar a remplacer sax laa yërëm. parce que je me dis que ki nar a ñëw. bu amul esprit bu patriote nekk nit boo xamante ni dafay ancré ci valeur sénégalaise parce que c'est bien beau ñu ci bëri dañ leen di gis ah. bu ñuy def politique lu ne leen di promettre askan wi mais bu nu yéegee da ngay gis ne dafay am décalage mm-hmm. entre réalité bi ak ñoom liñ fi jot a dikk askan wi mm-hmm. mais man je me dis bu nu déglu woon tuuti askan wi askan wi nekk seen seeni conseiller dëkk bi dina évoluer dina évoluer bu baax. peut-être nag état am na ay réalités mhm. état dafa am ay réalités mhm. mais réalité bi ci ëpp solo mooy bëgg-bëggu askan wi. dëgg la am na solo euh, pour auditeurs yi ñu prendre en cours di fàttali yéen a ngi déglu seen émission sans filtre espace jeune ñu dalal fii Aminata Thiam Aminata Thiam euh, suñu naataangoo la waaye itam moo jiite lu euh, l'union des entrepreneurs sénégalais pour le développement et la promotion du consommé local di ab kuréel boo xam ne ay ñoo ko tënk li seen bëgg-bëgg mooy euh, xool nu ñu def ba euh, promouvoir waaye itam sukkali euh, li nga xam ne lépp fi ci Sénégal lay jóge Aminata est-ce que am nga njort nga ni peut-être un jour dinañ réussir consommer local fii ci Sénégal dans tous les domaines nag que ce soit habillement bi lekk bi et Hmm. dinañ dem ba Sénégal toog ba lépp li nga xam ne ñun lu ñuy lekk fii lañ ko utiliser li ñuy sol euh, li ñuy utiliser tam ci solu beeg accessoire lépp fii lay jóge du ma ne importé dina euh, dakk mais mënul mënul ñàkk parce que le monde c'est un village planétaire hmm. mais essentiellement lépp li nga xam ne dañ koy utiliser ñun ñu koy euh, jëlee fii ci Sénégal dinaa la ne waaw parce que dama ko gëm mais loolu il faut que yàlla may nu mhm. ñu bu koy incarner mhm. parce que ñun suñu bëgg-bëgg rek lañ am mhm. mais tey jii bu nu amee ku nekk au-dessus bu gëmul yenn valeurs yi du duñu mujj fenn on aura beau se battre mais duñu yegg fenn c'est bel et bien possible mën nañ ko def mën nañ ko def di sol déjà bu ñu jëlee exemple Burkina Faso mais gisuma meilleur exemple bu bu bu bu bu ko gën gisuma exemple bu ko gën Afrique. Mm-hmm. ñoom dañuy fier. Mm-hmm. si di wane ñoom li ñu am. Mm-hmm. problème blé bi mu amee am na benn boulanger bi mais dafa joxe beneen alternative génne ay xeetu mburu yoo xamante ne moo gën a neex sax ne leen carrément blé bi bu dee mënuñu cee jot alternative a ngi nii te pain bi mu ngi koy jaaye cent francs te moo gën a yomb. voilà pourquoi koy jëndee à parce que parce que c'est à la portée. Mm-hmm. ci réew mi la koy jëlee. Mm-hmm. mais ñun lu ñu teree def loolu. c'est ñun dañoo roy ba dàq nag. <laughs> doy na waar loolu Sénégal Sénégal lijjanti ko dina metti <laughs> looloo sonal <laughs> lijjanti ko dina metti mais en attendant daal lañ ko jàpp euh, ci nii rek di ko xeex peut un jour dina doon réalité euh, fii ci Sénégal mais aussi euh, ci seen organisation bi est-ce que yéen a ngi lëkkaloo ak yenn autorité yi pour gën a liggéey bi gën a mucc ayib loolu obligation la mhm. parce que booy créer dara pour jëmale ko ci askan wi pour intérêt réew mi il faut que nga xamal njiit yi fi nekk ne yaa ngi fi. Mm. Euh, liggéey boobu nag ñu ngi ci. Mm. incha allah dinañ seeti ñu nu war a seeti. Mm-hmm. incha allah pour wan leen ne ñu ngi fi parce que combat bi ni mëne quand même c'est noble. Mm pas parce que li ma ci nekk moo tax mais dafa nekk ay nit yoo xamante ne xam nañ ne combat bi du yomb parce que ñu ci bëri gëmuñu ko. Mm-hmm. te nit lu mu gëmul pour nga convaincre ko ci dafay metti maa ngi fàttaliku première fois bi may organiser sama salon made in Sénégal mm-hmm. boobu xamuma woon dama novice ci milieu bi bunt bu nekk nag maa ngi ko doon fëgg pour mën a taxawal salon bi mm-hmm. mais tontu bi ma gën a marqué bon dinaa retenir si tudd lim fi ay tour mhm. mais jour boobu ki ma tontu man nee naa bu xamoon sax ne journaliste lay waxal. am na ñu muy demee kàddu bi du ko du du du du du du ko génne. Mhm. parce que dama yóbbante woon benn lettre présidence ma expliquer leen salon bi et tout bien vrai que euh, jeune ma ne ah. salon bii day nii laa ko fas yéene defar et tout tout tout tout et j'aurais bien aimé que le chef d'État soit le parent parce que man gëm naa ni moom ci boppam bu dundee consommer local rek ñun dañuy dund consommer mhm. local mais xam nga rek booy soog boo nekkee entrepreneur te boo amee fit rek mhm. ne xaaral ma dem déposer samay lettres et mais réponse bi ma jot daf ma surprendre parce que mhm. nit ki nee na ma boo amulee réponse rek bu présidence sama veut affaire bi intéressé wuñu bul insister ministère tontuwu la présidence tontuwu la noon la ma ko waxee ah. Mhm. ça ne nous intéresse pas. ma ne ko mais bu dee ndaw réew mi dafa jug. Mhm. pour def loo xamante ne daf koy jëmal ci intérêt réew mi yéen bu leen intéressé wul yéen lan moo leen intéressé laa bëgg a xam. Mhm. loolu laa ko laaj. mais tontuwuma dafa raccroché. après j'ai su que il fale que je développe ma demal sama bopp bañ a ci ñoom. parce que man benn conviction laa am. découragé nañ ma nag. ñu bëri maa ngi ma dégloo dinañ xam. Mm-hmm. nee nañ ma Aminata ñun li nga bëgg a def nii ñu ñi say say say papa jéem nañ ko fee def. jàllul mais jàllul réussirul boo ko defee dinañ la kaala ma ne leen man sama salon bii may organiser su ma ko waree def sax ak benn stand. Mm-hmm. dinaa ko def. yàlla dimbali ma nag première édition ma am plus de cinquante e et jour boobu laa xam ne sénégalais yu bëri ndekete occasion bu mel nii lañ doon xaar. Mhm. dañoo am woon juste. plateforme bu nu mën a. Mhm. exprimer wu. Mhm. et ce jour là man lenn rek moo nekkoon sama satisfaction mbégte bi ma gis ci kanamu exposant yi parce que pour benn première édition nga maye say stand parce que jubluwuma ci woon am xaalis. ku ci kuy liggéey ku nekk nag. da ngay ñaan yàlla am ci dara. Mhm. mais man loolu nekkul woon sama premier objectif. Mhm. parce que bu doonoon loolu rek maa ngi liggéey journaliste la maa ngi am sama salaire mais. ba ma ko defee dama kontaan sama bopp parce que au moins sentir naa ne utile naa ci benn côté ak samay compatriotes moo tax ma ne la depuis le début question de volonté la parce que nit ki loo gëmul doo ko def et may interpeller encore une fois tey ñi nu jiite bu ñuy dem bay jël yenn décision yi ci domaine bu mu mënti doon am nañ ay conseillers des fois da ngay dugg benn ministère gis ñu am CT yu bëri mais conseiller bi gën mooy décision yi ngay jël ci ñi muy am impact parce que man je me dis ministres yi bu ñu doon génn tuuti ci seeni bureau mm-hmm. di dem à la rencontre des populations di leen déglu di waxtaan ak ñoom mu bañ nekk politique ah. parce que en général buñ neen gisee nu génn rek. Mhm. c'est juste parce qu'ils ont besoin de parce que man Sénégal laa gis ci am na yeneen pays yu mel noonu mais Sénégal laa gis ñun suñuy autorité amuñu yenn complicité yi ak seen askan. Mhm. ñoom complicité bu ñu am ak ñenn ñi rek c'est parce que ñooñu seen entourage lañ bokk. je donne un exemple. aussi simple que ça. bi ma nekkee forum mondial de l'eau maa ngi yoon pavillon marocain dafa am jour boobu dama am lu ma metti parce que ministre bu nekk ñëw na ci pavillon bi ministre sénégalais mais bi ñuy ñëw c'est des autorités mais seen seeni seeni proche lañ àndal mais bi ñuy ñëw j'ai senti benn désintéressement wu nit ñi ci autorités yi mhm. kenn fekk jiwu leen ñëw nañ def seen ronde def seen protocole après nu dem et pourtant amoon na ay xale yu fa nekk doon taxawaalu pour xool lan moo nekk si stand yi et mhm. man ministre bi ma doon accompagner mooy Nizar Baraka c'est c'est le ministre de de de l'eau bi muy def ay audience am. Mhm. benn école moo ñëw ay xale ah bu circonscription wu Diamniadio dañoo ñëw jubal si bi pour xool. protocole am daf ko ne am na xale yu fi nekk dafa arrêté audience am yëf yi dafa gaaw ah. Mhm. nit ki dafa gént et pourtant benn kilifa bu mag la dalaloon. benn mhm. ministre bu mel ni moom. Mhm. mais dafa ne xale yi nañ ma xaar. ndeysaan et pour retenir xale yi. ñu génnee ay sucreries ay boissons ñu séddale ko xale yi. pour xale yi nu mën leen a maintenir si stand bi nu mën a toog xaar mais lu ministre bi mu génnee mi ngi taxaw di waxtaan ak xale yi mu mel ni kuy waxtaan ak moroomam et pourtant du ministre sénégalais. c'est ça. ministre étranger la. loolu la sénégalais soxla nag. mais ñun jiit voilà mais loolu lañ tëlee. Mm-hmm. loolu lañ tëlee et pourtant yow sa askan boo wàcceewul sa bopp. dem ci moom koo koy defal. doo xam sa en fait seen bëgg-bëgg. doo xam seen jafe-jafe da koy dégg rek. jafe-jafe yi Sénégal yi dund nii man je me dis que suñu autorité dañ koy dégg rek mais xamuñu ko. pourtant ñun ñoo tax nu nekk fii. ñun ñoo leen di fay. Hmm. ñun ñoo leen di fay. confort bi nu am ñoom ñëpp suñu poos lay jógee. Hmm. yow chaque fin du mois am na lu ñuy jël ci sa salaire. Hmm. dangay ngay fay impôt man. première fois bi ma xoolee sama salaire brut. xool liñ may ponctuer chaque année. di ko dugal ci keesu état. dama mer benn réaction laa njëkk am bo c'est pas que je ne suis pas patriote. Mm-hmm. mais dama ne mais ñii amalul ma njariñ. Mm-hmm. lu tax ñuy jël yenn somme yi di ko dindi. ci sama salaire di leen ko jox. amalul ma njariñ ñu ne ma mais hôpitaux yi ngay ngay ngay dem ak tali yi affaire yooyu noonu ma ne sama yoon nekk ci. excusez-moi du <laughs> nekk ci parce que gisuma sama bopp ci seen gouvernance mm-hmm. et loolu lu matt a bàyyi xel la. ancien ministre Ousmane Ngom da doon wax. force reste la force elle reste peuple sa askan boo ko yoree. Mhm. ma répété waat ko da nga koy yërëm di ko déglu ji wéy ci ay waawam. Mhm. ah man de bu ma nekkoon politicien noonu laay def lu askan bi wax ci lay taxaw suba ba ngoon. Mhm. te gëm naa ni su ma ko defee. du soxla may def campagne pour nu falaat ma. dëgg la d' accord une dizaine de minutes moo ñu deseen ñàkkul ay défis yi nga xam ne yéen am ngeen ko bëgg ko relever euh, ci organisation bi. bon suñu premier défi mooy déjà nu sénégalais yi gëm suñu concept bëri na ñuy def consommer local Sénégal mm. d'ailleurs occasion la pour man may woo ñëpp nu boole sunu doole mm. parce que booloo mooy doole ku ci nekk nag xëy na yaa ngi exceller ci sa domaine kii ngi gauche kii ngi droite ku ci nekk yaa ngi def li nga mën mais gëm naa ni bu nu dajalee suñu doole yépp di waxee benn baat incha allah lépp lu nu mën ci def. Hmm. dina réussir parce que consommer local on le fait ah ñu ngi koy def chaque jour. des fois nu lekk ceeb boo xamante ne dañuy defe ne bitim réew lu jóge alors que si Sénégal lañ ko defaree. Hmm. mais ñuy gën a communiquer. di gën a valoriser ñun li nu am néewuñu ku ci nekk na bàyyi habitude ne forcément sol lu ñu defaree ci réew mi et tout. Mhm. ku si nekk am nga say préférence mën nga am envi sol leneen def leneen mais ñun néew ñu dañoo ñëw pour imposer wu parce que xam nañ ne lut bi du yomb parce que ay hommes d'affaires ñoo fi nekk suñu secteur privé nit ñi dañoo am seeni intérêt. Mhm. dañoo am seeni bi cim réew. ak feneen. Mhm. dañoo nekk ci domaine boo xamante ne moo leen di indil xaalis moo leen di dundal et pourquoi ñooñu war a mën a bàyyi loolu nga xamante ne fa la ñuy amee seen teraanga di di nu topp ñun ci lu nu am. Mhm. ñu néewul nu li ñuy def mënul nekk mais nañ ñu xajal rek may nu tuuti may nu tuuti baat boo xamante ne état def ñu gën a jox suñu gëdd tey jii ñu ngi jëm ci rentrée de classes ñu ngi jëm ci rentrée des classes. Mhm. man maa ngi saluer Simon Kouka. au passage. Mhm. li mu wax dëgg la. si xale yi dañuy jàngi. mais nañ dem ci cordonnier yi utal leen mhm. ay dàll. Mhm. moom aussi euh, c'est un bon projet bi nga xam ne taxawal na ko. te dàllu carax yi non sérieux te dàllu carax yi der yi moo gën a baax sax si tànk. xale yi nañ leen wutal ci dàll yi nañ leen utal ci saag yi. effectivement suñu artisan yaa ngi fi. buñ leen dooleelee mën nañ ko def. même cahier yi entreprise yi may gis ñuy maye ay cahier et tout. nañ def appel. yenn producteurs locaux yi même bu ñuy revêtir cahier yi di defar ay agenda ay stylo et yooyu yëpp mën nañ ko mm-hmm. état nanu may tuuti rek am nañ pourcentage nag mais nañ ko gën a yokk tey meuble normalement mm-hmm. bu am ci sunuy ministère ak fu mu mënti nekk war na jóge ci suñuy menuisier tey suñu ministre yi costume bu nu mënti sol war na war a mën a jóge si suñuy style mm-hmm. suñuy tailleur bien sûr waaw ak leneen ak leneen mm-hmm. nañ ko prioriser bu ñu ko defee prioriser am ci volonté man mm-hmm. gëm naa ni incha allah dina dem parce que mënuñoo am meilleur porte parole que ñoom ñoom ñoo nu jiite ñoom rek lañ mën a waxal nañ ñu dimbali ci consommer local bi jàppale nu ubbil ñu seeni buntu parce que bëri na initiative yi ñuy mën a mettre en place ñoom bu ñu jàppalewul faciliter suñu environnement duñu mën a dem te mm-hmm. ci loolu lay ñëw sax ci formation yi mm-hmm. parce que bëri na ñu nekk ci entrepreneuriat amuñu formation peut-être day nekk loo xamante ne c'est inné en eux mm-hmm. dañuy ñëw rek ne lii sama papa lii la doon liggéey man dama koy liggéey mais kooku boo renforcer ay capacité am daf ciy génn te ñu ci bëri ñu ngi defar mat euh, ay produits yoo xamante ne tey mën nañ ko exporter mënuñoo yóbbu seeni bi cim réew parce que xamuñu fu ñu koy jaarale mm-hmm. foofu laay interpellé parce que anne année année passée waa COSEC bi ñuy envoyé bi ñuy accompagner bon c'est pas de la pub hein, mm-hmm. mais bi ñuy accompagner dañu defara formation ci code FRA yi parce que tey sa produit bu amulee code FRA du présent ci supermarché tey ñu bëri ñu ngi defar ay produits de qualité yoo xamante ne présent wu fenn kenn xamu ko dañuy bëgg yóbbu bitim réew duñu ko mën. Hmm. mais tey ji gëm naa ni bu ñu leen wanoon yoon bi ñu ngi koy defaree gëm naa ni ñoom dinañ mën a gën a libéré wu. effectivement gën a valoriser seeni activité. man hmm. côté boobu sax surtout suñu cordonnier yi. su am na xale corde ñëw mosoon dalal mais ñi ngi def liggéey bu mucc ayib mais cherté bi cherté parce que nee na ba extérieur nit yi dañuy commandé mhm. liggéey bu rafet lay def mais tey lépp li nga xam ne dañ koy utiliser extérieur lay jógee te chaque jour nee na prix bi nga koy jëndee tey ak suba gannaaw suba du bokk mooy accessibilité matière bi mhm. et aussi di interpeller sunu jëwriñ muy ministre ju commerce sunu prix yi dañ ko libéraliser moo tax ku ci nekk loo am lu la neex nga koy jaayee. Mhm. état non seulement da ngay prévoir mais parfois ku ci nekk nag xëy na ay intérêt ngay ay ay ngay gérer. Mhm. mais il faut savoir parfois di ferme ci yenn yi tey jii am na ñu ñu doon doxalee. commerçant yi cherté wu yenn denrées yi ñuy wax du ñu am fitu def ko parce que dañuy xam ne ah. Mhm. lii kat bu ñu ko defee lii moo ñu ciy fekk. lii moo ñu ciy fekk prix yi fii lañ ko fii lañ ko yemale fii lañ ko war a yemale. mais contrôle bu amul suivi bu amul fixé wuñu prix yi defuñu dara mais ku ci nekk li dal sa xel rek ngay def dëgg la euh, cinq minutes moo ci des euh, ñàkkul am ngeen ay projet yoo xam ne bëgg ngeen ko taxawal suñuy projet bëri na mm-hmm. quelque rek déjà projet yi bokk na si comme ni ma la ko waxee état commande bu mu mënti defati mu jóge ci ñun mm-hmm. incha allah buñ ko mënee am mm-hmm. dina baax bokk na suñu suñuy projet bëri partenaire parce que ay partenaires il faut que nu am ko il faut que nu collaborer ak entreprise yi nu gën a prioriser compétence locale man bëgg naa tey lu nu mënti soxla Sénégal ci domaine bi mu mënti nekk nañ favoriser suñuy compatriotes ba pare soog a dem ñi soog soog a jëli ñi nekk bi cim réew te même bu ñuy defa projet yoo xamante ne dafa laaj expertise étrangère mhm. nañ leen poser condition boo xamante ne ñoom bu ñu ñëwee di ñu liggéeyal nañ recruter ndaw réew mi yoo xamante ne dañ leen di former waale pour bu ëllëgee bu ñu soxlawaatee compétence yu mel noonu mhm. du ñu jéegaani di dem bi cim réew di ko jëli mais ñi ñu former fii ñoom ñoo koy defar mhm. loolu tamit bëgg naa ko leneen aussi muy lan muy groupe bi gën a yaatu. Mhm. sénégalais bu nekk gis ci boppam. Mhm. man tey jii j'ai vu salon de Kaolack Serigne boobu mu ngi def liggéey bu bu rafet. Mhm. macha allah mais man balaa moom a doon gën a neex tey pourquoi pas ma réunir salon Made in Sénégal et salon de Kaolack nu fédéré suñu doole nu organiser salon bu mag. pourquoi pas sénégalais yëpp gis ci seen bopp. moo gën kii di def gauche. kii di def droite alors que même concept bi la man. solidarité laa gëm. Mhm. gëmuma individualité. Mhm. l'union fait la force l'union fait la force. Mhm. am na solo. Euh, de manière yi noo gisee ndawu Sénégal débrouillard nañ wala ñu ngi toog di xaar. jeunesse bu am jom. bu bëggul ku ko yeb bu bëggul ku ko jàppee dof ba pare bu gaaw a gis boppam. la preuve mars dernier ba nu gisulee lu nu bëgg. ñu bari nag dañuy defe ne. homme politique yee tax ñu génn non mhm. jeunesse bi boo gisee lu ñu doon manifesto mhm. ils en avaient marre tey jii bu nu demee bay def manifestation xale yi di dugg ci yenn supermarché yi di sàcc te boo xoolee li nu sàcc yépp mhm. lu ñu lekk la loolu c'est un signal fort man loolu tey su ma nekkoon président di gis sama jeunesse di agiré noonu dinaa ne man j'ai failli à mon devoir parce que man waruma jiite samay doom di xiif nañ xoolaat bu baax ni ñuy doxalee. am na solo ñoom bu subaa dootuñu fi nekkaat de. Mm-hmm, mm-hmm. mais nañ ko rafetal. pare nañ ba bu fi jógee ji nañ ne diw. liggéey na fi lii. Mm-hmm. loolu moo ci ëpp solo. d'accord mais du leneen am na solo Aminata ñu bay la rek nga joxe sa mot de la fin tàggatoo. bon sama mot de la fin mooy déjà remercier la si invitation bi wax dëgg yàlla permettre nañu nu yaatal. joxe sunu avis si yéen yi et surtout wax si solowu sunu organisation sunu objectif yi nu am et tout may gën a ñaax rek ñi nekk ci kanam pour nu gestu ñi nekk ci ginnaaw. Mm-hmm. jàppale nu parce que ñoom bu nu jàppalewul rek du nu dem. Mm-hmm. dinañ liggéey ba sonn mais nu mujj fenn. parce que ñoom ñoo nu mën a tirer vers le haut. Mm -hmm. et vers le haut bi ñuy mën a defal mooy lan faciliter suñu environnement. Mm matières yi accessible lu mën a liggéey ba sénégalais yi mën a jot ci suñuy article du cher si ñoom mm-hmm. loolu rek laa leen di ñaan et aussi di invité partenaires yi ñuy ñu ñu ubbil seen bopp ñi fi nekk parce que ñun xam nañ ne suñu économie elle est informelle lu mm-hmm. ci bëri secteur informel bi lañ nekk mm-hmm. mais ñu ngi liggéey lu am solo ñoo ñu tey boo leen dajalee mën nañ yóbbu réew mi ci kanam nañ ñu gën a gëstu daal. Mhm. ñu gën a gëstu. jaajëf merci beaucoup Aminata cam mhm. yow yaay euh, jiite union des entrepreneurs sénégalais pour le développement et la promotion du consommé local di la sant di la gërëm sa teewaay fii suñu émission. Euh, merci jour de semaine la voilà nga nekk suñu naataangoo ko ne xam na suñu milieu bi euh, daa xaw a siis dafa jaloux voilà <laughs> merci beaucoup kontaan nañ bu baax Bachir Cissé mbokk yi moo nekkoon ci technique bi di gërëm itam mboolem déglukat bu bàyyi xel jamono ji mbokk yi ñu leen jox dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème beneen invité.